docteur Assane Diop ñu ngi lay nuyu. maa ñu lay dalal yow nga jiite syndicat des pharmaciens privés du Sénégal tey ji ordre des pharmaciens du Sénégal bëgg ñu ratifier convention Médicrim justement lan mooy convention médicrime lan lay wundu. waaw convention Médicrim li muy wundu mooy ñu criminaliser maanaam ñu fexe ba képp ki nga xam yaa ngi yëngatu ci jaay garab yu bon. romb na sax garab yi bon mooy lépp luy jëfandikoo ci santé muy garab di ay seringue ay piqûre di ay sonde di ay compresse te mu te ñu defaree ko defarin bu bon. Mhm. képp ku ci yëngatu ñu jàppale comme kuy nit. loolu mooy daanaka lu bees bi mais dañ ci boole li ñuy tudd tubaab di tuddee et les infractions assimilées. Mm -hmm. infraction assimilée lu mu bëgg wax mooy tey même ki nga xamante ni dafay falsifier notice notice u garab mhm. wala day falsifier boîte wala day falsifier dossier technique pour présenter un dossier aux autorités pour ñu jox autorisation alors que dossier yi c'est pas des vrais ñoom ñëpp dañuy dugg maintenant ci biir mhm. une fois que ñoom ñëpp dugg ci biir léegi sanction yi la ñuy yokk parce que sanction yi nu am tey mooy lan mooy ku ñu jàpp dinañ la tëj ay euh, juróom benni ba at te gis ëpp day ànd ak sursis maanaam dinañ la kii waaye doo ko tëdd mm-hmm. dinañ la daan mais doo tëdd doo tëdd kaso ak amende yi nga xam ne du passé deux millions mm-hmm. liñ fi gis bu yàggul te mu indi xeex bu metti mooy Touba Belel cargaison bi di jàppoon mi un milliard mm-hmm. ñu xeex si ñu def appel dem ba yóbbu ko cassation mais yàlla def ni juge def seen liggéey mooy wane ni ñii kenn waru leen mën a bàyyi mais ñaata cargaison boobu bi ñu ko évalué ñaata la un milliard kii dugal si un milliard garab fas yéene ko jaay nga ni damay def amende amende ñaari million tëj la at du ko tax a bàyyi nag euh, Medicrime loolu lay indi benn hmm. mais Medicrime day indi leneen day indi li nga xam ne tey jii mooy bépp dëkk bu ko signé ak yeneen dëkk yëpp lëkkaloo. Mhm. xàccandoo dóorandoo waxandoo la même chose. day tax tey ki nekk Sénégal mën a collaborer ak ki nekk Guinée wala ki nekk beneen réewu Afrique wala même bu génnee Afrique Europe pour que ensemble ñu mën a traquer topp ñi koy def jàll bokk lëkkale seen i doole joxante ay information et cetera donc li muy indi mooy. Mhm. dëkk bu nekk maintenant dootoo defee si xeex yow rek. mais dëkk yëppay booloo xeexandoo kii bi te yaakaar nañu mooy ëpp efficacité. Mhm. tey jii ñu ratifié ko fii ci Sénégal lan lay changé euh, ci mbir mi. li muy changé ci mbir mi mooy peine yi dina yokk. Mhm. parce que wax nañ ko sànq te juge bi jàpp ki nga xam ne mi ngi jaay garab juge ko day bi xool taxi yi lu mu wax. Mhm. taxi yi lu mu wax moom laa wax léegi ay weeru kaso. yenn saa yi sursi du ko tëdd ak tuuti buñ ko ratifié juge bi bu jàppatee dina am beneen outil yeneen disposition yi nga xam ne daan yi dina ko mën a yokk parce que Sénégal nangu na ni rek daan yokk nañ ko mhm. mu boole ko ci ay taxam donc juge yi dañu am argument yu doy pour mën a xeex force de sécurité yi tamit gën a mën a euh, xeex ci mbir bi parce que wax naa ko sànq nee naa ay garab yu bon nee naa ay complexe yu bon wala ay seringue mhm. tey est-ce que force de l'ordre bi ak défense de sécurité bi yooyu outillé na leen suffisamment pour ñu xam ne complexe bi baax ak bi bon wala ak bi bon yooyu yëpp bu ñu ko ratifié. Mhm. nangu nag ratifié bañ am certification bi mais appliqué dinañu gën a euh, jox doole ñooñu nga xam ne ñooy xeex pour que euh, ñu mën a euh, fexe ba garab yu bon yeeg yëpp yi mu ak lépp li nga xam ne ñu njëkk a jëfandikoo ci mbirum santé. Mhm. te jaarul yoon ñu mën ko fi jëlee. tey jii docteur Diop yan ngeen gën a nemmeeku lii di jaayum faux médicament. waaw benn diwaan moom bu ñëpp xam mooy Touba dëkk bu sell bi di Touba tey boo fa demee euh, di nga fa fekk xëy na ñeent fukk ak juróom-benn muy 46 pharmacie yi nga xam ne ñoo am autorisation ay pharmaciens yor ko ah. Mm-hmm. Euh, mais foofu si côté wax nañ ko juróom ñeent fukk juróomi pharmacie yooyu. Mm-hmm. da nga koy fekk ñetti téeméer ak juróom fukk muy 350 dépôt. illégaux yu bind pharmacie waxuma nag ñu yor seen bitigu mbagg mm-hmm. ak ñu yor seen taabal ak boo duggee marché bu mel ne marché Ocass bi te fekk ñëpp yu bari mm-hmm. donc loolu lu la kër sëriñ bi tamit lu ñëpp xam nañu ku yor sa ordonnance bi boo demee garab boobu bëgg ñu jaay mm-hmm. am na marché tamit yi nga xamee ne boo demee caaro bi fekk fa boo demee jaw bi fekk fa même si marché yi lu may yenn saay boo demee donc fi mu gën fees daal mooy fii si Dakar Touba côté Thiaroye Kolda si marché yi donc foofu daal fes na fa moom. Mhm. donte euh, identifier nañu euh, fi nga xam ni foofu la gën a fësee lan moo tax mënuñu régler problème bi carrément. waa ñun dañ jàpp ne euh, autorités yi ñoo ci bëggugul jóg. Mhm. parce que noonu lañ ko mën a tuddee li wax manque de volonté politique ndax déglu nañu président wax ci. Mhm. wax ci ba moom ci boppam moo utiliser terme ni c'est un commerce mortifère maanaam ñii dañuy jaay pour rey nit la bu waxee ba pare nag ñu nen nañ ci xeex ñu jàpp ne nag ministère concerné na si war a jóg mhm. ministère yi buñ ci jógoon tey jii mu jeex donc pour ñu liñ jàpp ni moo tax affaire bi amul mooy volonté politique bi ci war amaguñ ko gisaguñ ko mhm. parce que nag euh, ñàkkuñu euh, jumtuwaay pour xeexal ak ñoom mhm. tey pharmacien bi bu jàngee ba noppi mënul jóg si boppam rek ubbi pharmacie dafa am autorisation yu ñu koy laaj. Mhm. bu tabaxee ba pare ñëw xool di ko contrôler te jii su ma jëlee exemple inspecteur du commerce. Mhm. inspecteur du travail wala inspecteur de la pharmacie surtout travail ak pharmacie bu ñu ñëwee sa pharmacie loolu lay jëkk laaj mooy am sa autorisation. Mhm. benn pharmacie am autorisation lu tax ñeneen sañ ko. donc ñooñu tey jii bu fekkee ne euh, kii nañ leen maanaam euh, fekk ku foo ci fekk ba mu nekk nga laaj autorisation amul nga tëj ko. Hmm. loolu mu déjà dina ko régler pour dire que volonté bi rek moo fi des ak jóg ni ñu koy def. Hmm. mais lu ñu argument yu leen xeexe ñàkk fi volonté politique rek moo sotteeku. moo fi des ndax am ndax am ngeen benn estimation ci euh, maanaam ndax am ngeen xayma ci marché faux médicament yi li muy dikkee Sénégal. waaw xayma bi ñu am du xayma. terme bu bu bu exact hmm. ndax activité la bi nga xam ne ñi koy def daanaka dañuy làqatu wala duñu duñu duñu euh, déclarer fenn li ñuy liggéey hmm. mais jàpp nañ ne lu mu néew néew dina mat fukki milliards ak juróomi milliards fukki milliards ak juróom lu tax wax nañ fi léegi Touba boo jëlee trois cent cinquante dépôt ku si nekk boo xoolee li muy liggéey ci at bi hmm. ah soo ko dajalee du sore ay milliards yi milliards parce que ku si nekk bu defee cent millions de chiffre d'affaires trente cinq milliards la. mais du ñu àgg foofu nga xool di xew biir wax nañ ko léegi si marché yeeg luuma yeeg kër sëriñ bi. même quinze milliards sax mën nañu dafa néew. parce que wax nañ ko léegi rek boo jëlee trois cent cinquante dépôt de phase bu ku nekk defee cinquante millions de chiffre d'affaires romb nga quinze millions yooyu quinze milliards. ñun nañ lu mu bon bon mën nañ ko xayma ci quinze milliards Mhm. tey jii euh, lan lay yàq yéen ci seen liggéey yéen ñi yor pharmacie. waaw euh, li mu yàq suñu liggéey xëy na am na sax mais ñun duñ bëggoon te li ñu yitteel ci xeex bi mooy li muy yàq ci askan bi mais mhm. li mu yàq suñu liggéey wax nañ ko léegi mooy euh, dina tax déjà image yu pharmacien bi xaw a xaw a écorché wu mm-hmm. parce que nag pharmacien la si euh, la état bi dénk garab mm-hmm. donc ay garab yu bon bu ñuy circuler xel dina dem ci pharmacien yi xëy na defuñu lu ñu waroon a def xëy na mm-hmm. mais beneen bu tamit mooy boo jëlaatee toujours dëkk bu mel ne Touba population bi fa nekk tey waru nañu am lu toll ci téeméeri pharmacie daanaka wala bokk ay juróom-ñett fukk mais ba léegi mënuñu romb juróom fukki pharmacie parce que dafa bari ñu leen di concurrencer wax nañ ko sànq soo amee euh, juróom ñeent fukk ak juróom mm-hmm. muy quarante six ñeent fukk ak juróom benn pharmacie régulièrement installé biir Touba nga am trois cent cinquante dépôts yu leen di concurrencé ah kooku du sotti am na tamit gis nañ ci sax des pharmacies nga xam ne jege point de vente illicite moo tax ñu tëj parce que da leen di concurrencé Mhm. Euh, donc am na impact effectivement ci suñu activité mais encore une fois lu ñu ëppal solo mooy ñu fexe ba lor bi ñu lor population bi di ko impact aussi sur les dépenses de santé parce que ki war a jënd garab bu baax pour faju mu jënd garab bu bon wérul mhm. dépense am dina yokku état bi dina ko yëg ndax dina subventionné lu ko faj donc loolu yëpp buñ ko seetee effectivement impact yi bëri na. mais dans ce cas ndax yéen amul rôle bi ngeen war a jouer ci sensibilisation. waaw sensibilisation daanaka si lañ dëkk dañ ko defa defa def def ba xëy na sax est-ce que sax loolu mooy solution euh, ñun syndicat doon nañ def at bu nekk ñu jël semaine de sensibiliser dem nañ fi Thiès. ci place de na lañ ko tuddee dugg Thiès def fa une une journée. la de France. Mhm. woo ñëpp woo élèves yi am na ñaari at ñett at ci ginnaaw dañ dem lycée euh, bi nekk biir euh, fële euh, Géeja Géejawaay sensibiliser élèves yi. dem nañ fi benn mhm. voilà limaamu lay def nañ fi benn année placardage ci bus yi bus buy daaw ñu gis ne vente de faux médicaments c'est interdit rajo yi wax nañ cee wax su ma jëlee suñu confrère yi nekk Touba dem nañ ba màggal bi passé mhm. dañuy jàllale ay spot pour wane ne pharmacie yi ñooy baax yii baaxul kon xam nga ni sonn nañ ci mhm. mais ñu jàpp ne sensibilisation bi am limite lu tax sensibilisation bi am limite mooy su ma génnee hôpital jàkkaarloog ñett ba ñeenti dépôt autorité état bi bàyyi ko fa. Mhm. boo sensibiliser nit ñi ni bu leen fa dem est-ce que tëj leen gënul efficace. fexe ba ñooñu du ñu am ba pare nga sensibiliser moo gën efficace mais trafic bi ak vente de faux médicaments toll na fi nga xam ne euh, sensibilisation bi efficacité bi dafay wàññeeku. Mhm. parce que nag bu ma leeree ne man mii garab bii dañ koy tere su ma demee pharmacie mënu ma ko am. Mhm. waaye su ma demee kër sëriñ bi am ko. nga bàyyi ci kër sëriñ bi ba pare li sensibiliser defe naa dafay compliqué mais nag du ñu tàyyi ñu ngi wax ñu ngi bind. Hmm. dina daal ñu koy def. pour mu jóge fi. sànq wax nga ko muy manque de volonté tey jii ngeen bëgg ñu ratifier convention Médicrime ndax jàpp ngeen ne autorité yi danañ ci dem ba mu jeex. am naa ci yaakaar ndax chef de l' wax na ko waxati ko dem nañ si Lomé wax ci te Sénégal euh, signé na convention bi. Mhm. ratification bi moo des mais nag ratification doyu parce que am na benn dëkk bu bu ñu sorewul dara bu taxal Sénégal ratifié na ko. Mhm. mais tey dëkk boobu marché bi illicite bi nam fa mel jéggi na dayoo ñu jàpp ne su état bi amee volonté ratifié. Mhm. bu ratifié ba pare jël disposition yi dugal ko ci texte de loi yi ba pare appliqué ko effectivement. dina efficace mais am nañ yaakaar ne eh, nguur gi mi ngi ci parce que bi ñu chef de l'état recevoir waxaatoon na si te waxoon na aussi ministre concerné yi à savoir ministère des affaires étrangères ak de la santé. Mm-hmm. ñu def tout ce qu'il faut pour que euh, ratification bi gaaw application bi gaaw. Mm-hmm. docteur Diop euh, ndax jàpp ngeen ne tamit ratification bi dina régler problème bi ci secteur bi. ratification bi outil la maanaam outil la outil nag kii ça dépend noo koy jëfandikoo rek. Mm-hmm. bu ñu nangoo jëfandikoo ko comme il faut effectivement mun na régler le problème mais bu ñu ko ratifié ba pare tamit bàyyi ko ci tiroir yi joxuñu les moyens aux juges et aux autres vraiment d'appliquer euh, dispositions yi nga xam ne moo nekk certification bi mm-hmm. effectivement mais bu ñu ko nangoo ratifié Euh, jël dispositions yi te ko ci code en tout cas tout ce qui est texte de loi qui organise notre pays euh, et, et à savoir et euh, tous les domaines ah santé di droit dans sa droit pénal et autres mm-hmm. bu ñu ko ci dugalee effectivement dina am dina efficacité. dina am efficacité docteur Assane Diop nga jiite syndicat des pharmaciens privés du Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. man maa leen di remercier bu baax ci opportunité bi ngeen ñu may nii ñu mën a wax ak askan wi ci problème bi bu toll nii. jërëjëf merci beaucoup docteur.